depuis sa matin ñu sant yàlla bu baax ju ci yonent bi ñu tëj tey tournée bi nga xam ne moom ñu commencé woon fii ci département Dakar su instruction de son excellence le président Macky Sall ñu ñëw ci jox yi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ci inondation yi amul la cinq septembre 2020 yàlla dogal mu am ci ay sinistrés ñu ñëw nag ci fi nga xam ne fii gox yi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu nekk ay sinistré aussi inondation waaye am aussi ay victime parce que kenn ëmpalewul ne taw bi mu ñëwee fii Sénégal le 2 le cinq bi passé engendre inondation yu rëy senegal ndax taw bi dafa bari ndax li mu taw Sénégal defe naa man boog xam naa dootuma xale waaye gëj naa ko gis Sénégal te li ma taw moom nit moom ko yàlla sunu borom moo ko moom mu wàcc ko Sénégal lépp nekk yiw nag ñu sant yàlla bu baax julli ci Yonent bi

seet fa xale bu am solo boo xam ne volontaire croix rouge la yàlla dogal mu doon jéem a sauver vie ba fi yàlla def vie am ab bakkanam des yi kon defe naa ñoo loolu bu ko waa Grand Yoff déggee dañu xam ne métti métti na ñoom seen bos waaye ñoom tam ñu ne tam seen bos métti na ñu xale bu jàmbaare koo xam dañ ko war a naw mu nekk exemple ci xale Sénégal parce que nit ñi nag yaakaar naa bu am fa jafe ñi ngi dëkkal ñoo leen war a ñoo leen war a taxawu te yaakaar naa xale bi taxawaayam rafet na boog foofu mu dëkk ci Rufisque Ouest ñu fa jógee ñu dem Bambilor seeti fa xale bi sant Faye moom tam bi fa demee fekk ay parent ñoom tam jaale leen massawu leen coono ñoom tam xale bu xaw a dëgër la moom tamit yàlla dogal moom tam mu des ci canal bi nga xam ne mooy bi nekk foofu ci ci ci Bambilor ñu jógee fa ñëw Caaroy jidda Caaroy kaw fekk fa moom ginnaaw jidda Caaroy ginnaaw raay sud ñu dem fa moom tamit fekk fa tamit ay jafe-jafe tam xale tam bu am solo moom bu ñàkk bakkanam mur mu effondré ci kawam moom tam ci inondation le 5 bi fa jógee ñu ñëw fii ci Cambérène seet fi tamit ben xale mom tam bo xamné xale bu góor mom tamit bu ñàkk bakanam ci inondation yàlla def na tëj nag tournée bi fi nak ci def ci commune de Grand Yoff seet xale bu am 2 ans yàlla dogal mom tamit mom bakanam dem ci inondation yi li ci am solo mo li waxon sank rek ñëw bi soutien bi ak solidarité parce que nit ki lu mu metti met ak lu mu dis dis rek yaakaar naa boo fekkee ne sa askan taxawu nañ la état bi aussi xam nga am jafe-jafe ñu seet la def naa lu jara manifier la lu jara deugal lu jara pérenniser fi suñu réew yalla dogal nak tey ni ñu nekk Dakar ni def tourner fekk na au niveau national la directrice de la famille et de la protection des couches vulnérables mom tamit dans tout le Sénégal ci presque toutes les régions pour xol mom tamit ñi nga xam dañu am ay victimes mom tamit mu sargal leen indi solidarité ak soutien bu état Sénégal tey jii yàlla dogal na dem na région de Kaolack dem na région de Sédhiou tay mi région de Matam pour que mom tamit euh, ki bobu tourner bobu nga xam ne ñu commencé won inondation yi moom xam nga ne rek li ci am solo mooy wax naa ko léegi inondation yi du Sénégal rek phénomène boo xam ne bii la c'est mondial def naa dëkk yu bari xam inondation Sénégal aussi yaakaar naa lii dafa lu bees inondation yàgg na fi am parce que ni ngi dëkkee pays en voie de développement ñu dëkk ci yoo xam ne ay zone ndox la dëkk itam foo xam ne day am jafe-jafe ndox mi di taa wax naa ko sànq inondation inondation dafa am parce que am na zone yoo xam te ba fa demee le 5 nga demoon fooy fekk ndox mi egsi presque ci à hauteur de 1 ou 2 mètres

tey buñ ko limé duñ fiñ fu joggé defe naa Touba bo démé aux alentours de la mosquée gis nga né tey jii ndox mi wàññeeku na fof nga dem Kaffrine la même chose nga dem Jidda nga dem Jidda ko Kaolack nga dem Dalifort nga dem Cité Soleil amna zone yu bari yo xamné intervention programme bobu def na fa te yaakaar gis nañ ay résultats yo xamné dañ ko apprécier légui li ki des nag moo continuer programme bobu doxal ko ci Sénégal ba képp koo xam ne am nga ci ay jafe-jafe nga mun ci génn ci jàmm ak salaam parce que loolu mooy vision président fexe ba askan wi nekk dans de bonnes conditions jafe-jafe ñu am ñu mën leen ko dindi Thank you.